tëli bi nag mën nañ ne jamono ji tàng bay lakkee lay def ba tax na daal accident yi bëri fi lool loolee nag ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag fas yéene si xëpp li nga xamante ni moo di glace woote li nga xamante ni moo di conseil des ministres la ko xamal nekku li nga xamante ni moo di conseil interministériel ñu jéem a xool daal naka la def ba saafara li nga xamante ni moo di accident yi ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi jubli si lii di màggal Touba ak li nga xamante ni moo di gàmm kon accident yooyee nag war nañ cee taxaw bu baax xool naka lañ koy def bañ koy ba saafara ko dawalkat yi di dawal ndànk li tali tamit bu fekkee ne dafa yàqu ñu xool naka lañ koy def ba joyantiwaat ko ba nga xamante ni yoon yi daal ñi say jaar dina gën a mucc ayib. loolee nag mën nañ bala mooy daaneel sax am nag benn accident boo xamante ni tontu na ko sa saa si accident boo xamante ni nag bu doy waar la ndax ñaari moto Jakarta nag ñoo daal di mbëkkante fi nga xamante ni moo si diwaanu Linguère ba am kan boo xamante ni daal rot na si. sa saa si am tamit ñaar ñoo xamante ni am nañ si ay gaañu gaañu yu métti métti métti métti kenn nag ñu yóbbu ko si fi nga xamante ni moo di hôpital Cheikhoul Khadim bu nekk si diwaanu Touba kas ko fi nga xamante ni moo di si diwaanu Louga si hôpitalu Magatte loole nag nekk nag jéey joo xamante ni mën nañ ne ju doy waar la ju benn bakkan bu rot kon accident yi jamono ji nag mu ngi woy ba léegi di fi jël ay bakkan ginnaaw ay bés ak léegi